diggante boole bu okaas ak Bébé Ñakk arbitre baa ngi wax ak ñoom kooku lañ naan Mayel Thiam c'est l'arbitre central Laurent ak Ma Ali nekk arbitre yi nga xam ne ñoo koy secondé ma ngay wax ak ñoom Bébé Ñakk day mbër moo xam ne day rañaan moo ñu wan gannaaw buy arbitre soufflé rek su amé buntu dem na waye bo la nek mbeur mo xamné momi dafa tay beureum yépp day tay dal am expérience momi ci walum lamb combat bi mën na diré waye mën na bañ diré waye même bu diré action yi dana bari ndax Bébé ñak lu mbeur muy da fay dem waw Bébé ñak ngi nonu Bébé ñak mo ñu wan chamoñ ndaysan bolé won ñu jor bolé déclenché na gis nga bolé xam na ne ba ñak du mbër muy taxaw di xaar déclenché na ko ñaari xale ya ngay lewto fi ci cœur de ville bu Kaolack quatrième édition drapeau pamba Demba bi tay and ci ak ki nga xam né moy pam musukuro may ndeysaan di nuyu tous les promoteurs de Kaolack Ibou Bambara ibu Kayta ñukoy nuyu waye di nuyu pam Moussa di nuyu Moussa Jama may di nuyu Adjuma Diouf di nuyu ñep ndeysaan Fatou Baye Fall lay way mu nekk une fierté Kaolack waas ndeysaan doomu kawoon bi doomu Kaolack bi Baye Talla Seck jëri jëri Baye tëgg arbitre nee na bëre leen attention boole déclenché na coup mais dafa bëgg a jàpp Bébé Ñax it aussi li muy def nii ragalu ko système lay bëree ndeysaan combat bu bëri coow combat bu bëri coow combat bu bëri coow ñoom ñaar boole gauche bi la teg Bébé Ñakk droite bi Bébé Ñakk li mu bëggoon amu ko moo tax bëggoon boole teg droite bi combat bu compliqué ñoom ñaar boole mooy am atu bi parce que pied droite bi da koy arrangé ndeysaan ñi ngi lewtoo Bollé taxaw na li ma la wax rek mooy am à tout moment Bollé Bébé Ñakk mën naa ñëw bëreegum nañ deux minutes quarante cinq secondes fii ci cœur de ville bu Kaolack vingt deux heures trente sept minutes niñ koy faral di waxe reporter yi bu ñu jugee Dakar na lambu Kaolack day guddee man a Saalum la boo creusé dem ba ci kaw noonu lamb yi cinq heures du matin la jeex prime yi maa la ko wax fii Saalum la cosaanu lamb la bu keleer di leen masaana am bu ñu bayee ba pare la ñuy bëree dañ koy fanaanoo ba mu bër set nit ñi di dem jàkka di leen gis nit ñi di dem jumaa yi pour julli ju fajar di leen gis ñuy bëre loolu la ñu xam moo tax lamb di guddee Kaolack et puis nous y a la chaleur day xaw a tàng pour nga bëreloo xale yi au delà de 16 h wala 17 di ngi Leewtoo ñoom ñaar dara ya, amagul bu ñu jàppantee rek mën naa wax ne mu jeex am naa ci yaakaar ne te ku ci juum ba sa morom egg la fu sori nga perte combat bi maa ko wax arbitre soufflé na ah arbitre bi moom tàng na de yaramam tàng na na bëre leen waaw waaw eh. lay lay la mayel le grand arbitre Mayel Thiam ndeysaan ña nga ca ba léegi nii ñu ngi leew too dara amagul attention lu ñu fagoon saane Bébé Ñakk moo koy def boole moo koy def mox dox ci kawam mais Bébé Ñakk dafa bëgg daw jàppoo bi lay dafa bëgg a juwal ak moom maa la ko wax loolu la bëgg day jàpp léegi du yàgg day juwal moom jàpp léegi du yàgg attention jàpp bi la bëgg jàpp bi la bëgg de attention déclenché na coup moom it mi ngi dox ci kaw boole ñoom ñaar ñi ngi xeex bare guñu de dañuy xeex waaye xeex ut buntu la ñi ngi xeex ci kaw attention jàppante loolu la bëggoon waxoon naa jàppante loolu la bëggoon loolu la bëggoon eh reprise ko xale bi dafa mën a bëre la ilaha illallah waaw oho arbitre nee na dara amagul arbitre nee na dama atte ba pare arbitre nee na dama atte ba pare la ilaha illallah combat bi neex na waxoon naa ko ñaari xale lañ ne dañoo taxaw dëkkonte fépp ma woo Pambay ba mu ñëw ma ne ko may ma taxawal combat bi mu nangul ma ko te xam naa ne amateurs yi ñi ñuy seetaan à travers Lutte TV ak ñi nga xam ne ñi ñuy seetaan à travers Sir Saloum Info ak ñi nga xam ne ñi ngi ci turbine bi ak ñi nga xam ne ñooy amateurs yi kontaan nañu ci combat bi waaw arbitre woo na leen ku ci nekk yaa ngi dem ci sa waaye kiri ñuy wax ak yow Fils de li moo ko indi mi ngi noonu gis nga mi ngi koy dindil sengoor gi moo ak tas yaakaar ñoo indi booy bi Fils de li tas yaakaar ñoo indi xale bi ñoo indi boole bébé ñàkk ñàkk jariñu moo ko indi combat bi neex na de arbitre suuf la wan na arbitre suuf la wan na combat bu neex la ñuy bëre nii arbitre bee wax ñoom nee na mi temps arbitre woo waan na leen Buur Saalum niil du am de ñu leen di xool ñoom ñaar ñëpp ma ngay wax ak ñoom bébé ñak bu ci tibb na suuf mo ñu wan gannaaw boole momi it tibb na suuf nan lañuy aborder nak deuxième round bi lolo jara laaj ñom ñaar ngi lew towat bébé ñak ndeysaan Bébé Ñakk ak ki nga xam ne mooy Bolle Bocas Bébé Ñakk dara amagul de premier round bu neex la ñu bëre ñoom ñaar bi ñu jàppoo neewoon naa la suñu jàppoo rek laa mujj a jeex ndeysaan ñuy ñu ngi seetaan ñëpp en direct fii ci Kaolack Bébé Ñakk ma ngay génn gàllaaje di sànni ndeysaan Leewtoo ba Bébé Ñax mi ngi wut jàppoo bi Bollé mi ngi taxaw ci ay gardam di ko xool Bébé Ñax loolu la bëgg pour boog leen déclencher ay coup mu juwal moom moom lay uti de Bollé dóor na waaye boo dóoree ba am porte da ngay dem ku lu mu ndaw ndaw bu dalee ci kanam jarul xeeb su ñëwee rek exploité ko Bébé Ñakk jàppoo bi lay boole xeex bi ne ko dañ koy cons ñun ñaar bu ñu xeexee ba ci kanam attention doon jàppoo ñaari xale yi ñu ngi lew taw dara amagul attention attention Bébé Ñakk na moytu coup bi nag parce que Bollé armé na coup bi taxaw attention ndeysaan buur ñaari xale yi ba léegi nii ñu ngi lewtoo mais dara amagul ñoom ñaar gis nañ ne Bébé Ñax moom dafa bëgg a dem waaye mi ngi sóoraale li nga xam ne mooy coup bi nga xam ne à tout mën na ñëw. li ma la wax rek nee naa la boole xeex la bëgg Bébé Ñax nag daa bëgg a téye jàpp moo tax lamb ji doy war nga gis ku juum rek daanu. ku juum daanu buur a ngi noonu moo ko wax xale yaa nga ca lewtoo ba Bébé Ñax Bébé Ñax mi ngi jéem a def ay. dëgg la lamb waxul dëgg. billaay wax nga dëgg wala bëre na ak mbër mi ñu wax caatu yoof caatu yoof li nga xamante ni général bu Malika daan na ko daan na Njaay Tine wala bëre naan moom moo dama ne la lamb waxul dëgg dëgg la billahi lamba ngi noonu xale day toog ci saalum di la seetaan aduna dox ba mu bëre yow lamb rek ko sañ ndeysaan xale da lay bëgg nekk ci kër di la supporté ba virusu lamb dugg mu ñëw bëre daan la lamb doy waar xam nga lu koy firndeel waaw Balla Gaye de seetaan na Yékini ànd nañu ñoom ñaar salle de musculation yi ñu daje fa ñu joxante loxo mu niw ko mu bés ko waaw ne sa xalam ne ñoom ñaar tawu tar daañu bëre moom boobu Balla xam na loolu waaye Yékini gis xamoon na loolu bàyyi ko xel Tyson nekk fan su xam ne Balla Gaye moom la la bëggoon inspiré ko ci lamb ba mu dem àdduna dox mu bëreeg moom leer na war ma la lamb waxul dëgg ndeysaan day xëy rek

ñun ñu jooyuñu Gaston Mbengue jooyuñu Aziz Ndiaye. bilaay ñu Makan Mbengue. bëri nañ fi de. li xew Dakar am na Kaolack te yéen ñii la. kenn du Pambay. kenn du moom suñu réew. kenn du Ibou Keita. nee naa ko Kaolack mu ci ñoo seetaan kalaf ko waral. bilaay kalaf bu ñu ko nee Kaolack yow rek yaa ko waral. dëgg la kon ñu ngi nuyu promoteur yëpp Pape Moussa Koura Mbaye ndeysaan. wax Moussa Diama lamb da soxla dikkal ñu ngi ci mu nekk koo xam ci wàllum lamb. moo njëkk a ñëw def fii direct moom it nekk liggéey am solo as production a Juma Diouf donte mi ngi dem ci mbapat am di Fall donte mi ngi dem ci mbapat mi dëgg la ndeysaan Kaolack moom wax dëgg yàlla am na ay promoteur ci wàllu mbapat mi am na ay promoteur ci wàllu li simple bi am na ay promoteur gis nga xale baa ngi noonu xale baa ngi noonu nekk ci buddee ba xam naa ne bouteille bi li ci nekk war naa rëy bouteille bi li ci nekk war na rëy de ndeysaan xale yaa ngi noonu xale xale yaa ngi noonu suuf la wanta attention Bébé Ñakk moyul ku boole attention boole dooraat na Balla dooraan na Bébé Ñax ak Balla jàppante nañu jàppante nañu jàppante nañu jàppante nañu génn nañu saako ya génn nañu saako ya ñoom ñaar Bébé Ñax am na avertissement Bébé am na avertissement dafa bëgg a bëre fi mu ne nii jàppoon nañu ñoom ñaar attention Bébé Ñakk mi ngi creuser de attention attention lan mooy am lan mooy am daan na ko oh Bébé Ñakk daan na ko Bébé Ñakk daan na ko xale bi xale xale bi daan na ko Bébé Ñakk daan na boole boole waroon naa xaar lii booy bi mu amee avertissement la jël initiative pour bëgg ko juumloo ñëw na ko bëgguma profitoo sama lamb déglu ko. borom Touba jërëjëf maam Thierno borom daaru sama sëriñ jàpp na ci combat bu baax a baax borom daaru rek laay topp. maa sant sama waa dëkk Sibassor aw ma seen fay rawatina monsieur le maire non déglu dinaa wax monsieur le maire non monsieur ma jàppale Faye bu Ndiaye jàppale ma Alassane Tigi jàppale ma ñoom Mbaye Sarr ñëpp di ñaanal yàlla monsieur le maire bu fa nekkoon nekk yàlla na ko yàlla yërëm xaaral ko àjjana victoire bi dama koy may Papa Ra Papa Ra Ra dama ko koy may dafa sori si man parce que Seydina Mouhamed donc yoroon sama convoi Jakarta bi daaw la def suuf affaire métti ma mooy sant sama soxna sama soxna maa ngi koy sant di sant jigéen ñi déwul rek di sant amical di sant sama turandoo bu mbay di sant ñoom Lamine bi ak sama copain Vincent ak ñëpp ñu may bégee ñuy bégee bégee ñax maa ngi sant sama sofoor Aliou Ndiouge maa ngi koy sant di sama sofoor ñu gaa yëpp waa